waaw xel mënagul mënagul daal donte ñoom ku jóg comme docteur mu ko waxee ku jóg ñu dóor la yàq ne la toogal wala nangu nangul li nga li nga yor wala baare say oto ñun fan yi paase rek dem nañu dañu jàpp suñu oto donc pourtant mën nañu def conférence presse wax ko mais ça veut dire jaay doole bi nga xam ne moo fi ne mooy Sénégalais yi mënatul gérer ça veut dire ñoom ñoom ñoo yor nguur gi ça veut ko ñoom ñoo yor lu leen neex la ñuy def mm-hmm. euh, wax nga ko souligné nañ ko sànq ci wàllu justice justice bi tëddeewul njaaxaanaay tëddeewul njaaxaanaay bu ñëwee tey ci li nga xam ne tey sànq maa ngi ko ci par rapport ak élection yi nga xam ne ñu jëm. sur le mm-hmm. sur le fi club sax bi ñu joxe club dafa am ay soucis. technique technique des soucis technique. tey boo xoolee derrière corrigé, ça même logiciel bi nga xam ne tey war na jot le fichier électoral algorithme bi ci nekk derrière xamuñu ko. Mm-hmm. amul nekk amul kenn koo xam ne ko ni dafa dafa am disposition boobu noonu. donc am na ci ay couac yu bëri yoo xam ne tey dañ koy souligner mais ñoom dañu nekk lu tey di jaay doole. jaay parce que ñoom nguur ñoom lañ ko dénk. mais est-ce que dans l'opposition seule voix parce que aussi souvent dañu gis ne individuellement ku ne mën na am problème mais les autres ne s'impliquent pas fi ñu toll nii nii est-ce que loolu rek moo mën a tax ngeen mën a faire face à à pouvoir comme ni gars yi déggoon en par exemple. ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi si donc euh, je pense que euh, dinañ teg ay action bientôt incha allah ci parce que ci loolu la ñu nekk. le parrainage aussi vous pour en tant que tey parti MPR en marche pour la renaissance du Sénégal monsieur Hamidou Thiaw ko yàlla dogal mu def sept ans dem jàng ji France jógee def États-Unis sept ans liggéey banque mondiale ñibbisiwaat fii taxal parti bi di ci liggéey ñu participer ci élections locales Notto Diobass ak Saly Kory Salé euh, am seize conseillers élection législatives yi passé yàlla dogal ñu am benn député. yaakaar naa ni par exemple député député bi moomu leen ko. waaw benn député bi moomu leen ko. donc Pape Djibril Fall la seen serviteur waaw non. <laughs> en fait Hamidou Thiaw moom moo moo fay. caution am. Hamidou hmm. Thiaw moo fay maa ngi ciy ñëw. Hamidou hmm. Thiaw moo fay caution am jox récépissé parti bi jiital ko du ma tudd sa turam. Hmm. parce que instant bi dépassé nañu loolu. donc ñun mataloo nañu suñu parrainage. ça veut dire que ñun amuñu problème parrainage suñu ne nii suñu parrainage mais mais question parrainage bi xam nga fan laa bëggoon a ñëw surtout mhm. parce que dama ko seetlu dernièrement il est même difficile d'avoir euh, des responsables de l'opposition ci sa plateau parce que koo woo mhm. mu ne maa ngi sama localité parrainage laay lijjanti mhm. maanaam est-ce que du luñ teg aussi pour que yéen ngeen occupé wu ci loo xam ne <laughs> ñoom pendant ce temps ñi ngi ñi ngi ñi ngi seen ay mbir non même pas parce que 2012 dañu n'avait pas ce problème ils étaient là tous ensemble waxandoo dóorandoo xam ne voilà maintenant nag loolu mënul nekk ku ne da nga dem sa côté bopp pour pour liggéey c' est que ñun déjà ñun dañ ne dañ ne. ñun ñun lu ñu wax mooy dañ ne déjà parrainage yi dafa tuuti. dañ ne woon sax beneen dañ ne woon dañ ko gën a yéegal beneen bi mooy caution bi sax caution bi sax dañ ne woon nañ ko nañ ko nañ ko nañu joxe trente millions voire même cinquante millions ñu dem déposer ko ba pare déposer ko parce que di ko tey euh, euh, pour wane ni ko ni ñun comme li nga wax te ñun parewuñ ñun pare nañu bu dee parrainage amuñ ci problème bu dee caution amuñ ci problème parrainage parce que nous sommes l'opposition tey le le président si si si ñi ko ñi war a voter parce que nous sommes de l'opposition te ñun alternance dañu gëm parce que mm. ñii danañu bàyyi sénégalais yi décider seen bopp parce que tey war nañ am profil bu baax ñu profil bi ñu gëm le président Amady Thiaw c'est le candidat idéal woote rupture def opposition en 100% issu du secteur privé c'est comme le candidat du PUR ah gars yi xamuñu leen oui oui vous vous pouvez le dire à l'étranger d'accord d'accord à l'étranger c'est des am xam c'est un ingénieur Hamidou Thiaw c'est un ingénieur financier def sept ans France liggéey institut du pétrole nekk ingénieur financier def liggéey banque mondiale def fa sept ans ñibbi si waat Sénégal réewam ne ni ko Sénégal defal fayal ko bourse ba mu jàng ba mu yegg si fii nii dina ñëw delloo ko Sénégal. issu du secteur privé musul laale nguur musul nekk ministre ba pare tey moom laa élection législative yi nii da woon moom bu demoon euh, ci législative yi ça veut dire que koy joxe soxla dara ça veut dire que ñoo xam ne tey suur nañu démb tey le politique de l'éthique discipline ak travail ñun loolu lañ gëm parce que nous sommes des hommes de terrain ça veut dire que pour siiw ak électorat bokkul c' que ñu ci bëri nag dañu am tentamment di yuuxoo di kii et siiw électorat siiw ak électorat bokkul